jëwrin ji nga xamante ne moom mooy Sidiki Kaba ab tricycle la jël daal di koy jébbal benn militaire boo xamante ne nag dafa jële woon ay gaañu gaañ ci ab guerre boo xamante ne nag defoon na ko jëwrin ji nga xamante ne moo yor lépp lu jëm ci forces armées di Sidiki Kaba benn waay la daal di nag dindi ci naqar ba mu nekk dindi ko nag ca xel ma nga xamante ne amoon na ko ngir daal di rek a Sidiki Kaba moo yëkkati nag ab moto tricycle boo xamante ne nag mu ngi jar ñeent fukki junni yu manqué ñeenti junni yëkkati ko nag jox ko jële woon ay gaañu gaañ ci guerre ñi bokk ci cabinet militaire boobee teewe woon nañ ko waaye tamit ay civil yoo xamante ne dañu bokk ci ministère des forces armées alas moo ñu ko xamal ki nga xamante ne tey ji moom nuy jëppal bi li moto tricycle dafa nekk nag ko xamante ne dafa def ñetti opération ci ëmmu càmmoñ ba ak ñaar yoo xamante ne def na ko ci ëmmu li nga xamante ne moom mooy ndeyjooram loolu tax dem ak dëkk yomb ko mu nekk nag loo xamante ne nag jural na ko ak tiis ay bés yu jot mu ko doon dund ba muy sàkku sax ñu defal ko ab ci li nga xamante ne moom mooy ñaari tànkam yooyu loolee nag mu nga xamal na commission spéciale de réforme jëwriñ ji nga xamante ne moom mooy Sidiki Kaba a na nag xelam ba ko joxee caabi li nga xamante ne moom mooy billet tricycle bët ya nag ay rongoñ dong lañ ciy gis mag Mactar Dia mu ngay gërëm jëwriñ ji nga xamante ne nag moom mooy Sidiki Kaba waaye tamit fàttewul benn yoon yi nga xamante ne nag ñoom ñooy ay officier supérieur jàpp na ne nag ñoom ñooñee ñu ko daal di rek sauvé ndaxte demoon na sax ba jël dogal bëgg xaru bu fekkente woon nag defuñu li ñu def tey jii ci armée yu Yoff lañ may fekk loolee moom ma ko daal di xamle nekk nag ab soldat boo xamante ne nag jamono jii mën na dem ak dikk te li ko waral nag du lenn lu dul ab tricycle boo xamante ne nag maanaam am moto boo xamante ne nag daal dinañ ko koy jébbal jamono ji nag nekk loo xamante ne dafa daal di métti bëgg na nag bi la jëwriñ daal di koy gunge